asalaamaaleykum mbokku internetu 24 actu ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ànd bi di ànd ak ñun euh, saa su nekk ñuy baalu ñëpp àq na te di leen baal àq te ñaanal ki nga xamante ni moo di Serigne Mountakha Bachir borom yàggal ko fi ba naal nga xamante ni naal na ko ngir liggéeyal ko maamam ji di Cheikhul Khadim yàlla may ko mën ak kàttan euh, gu mu koy eggalee waaye noonu tamit la ñaanee mbas mi nga xamante ni moo lëmbee mim réew di Covid 19 yàlla suñu borom génnal ñu ko fii ba nga xamante ni activité yëpp taxawoon daal di mën a reprendre comme ni mu gis ngeen ne booñ ko dooree boobaak léegi li ci ay interview am nañ ko ak ay reportage ak ay découverte yoo xamante def nañ defal nañ leen ko dëkk yi nga xamante ni Cheikhul Khadim moo ko sanc wala mu joxe ndigal ñu sanc ko yooyu yëpp am ko ci seen site bi di 24 actu tey nag ñu toog ak ñu taxaw ak kenn koo xamante ne ni yaakaar naa kenn dootu ko laajteeti fii ci Sénégal rawatina fii ci Touba Mbacké ndax ñu bëri xamee nañ ko muy Serigne Abdou Lahad Bousso Maram nekk koo xamante ne ni day waxtaan ak xam-xam ñu di ko ñaanal dañ koy ñaanal moom dañ koy sagoo ndaxte yaakaar naa ne heure bu waxee rek xam ne borom xam-xam wax na tey nag moom lañ fa séenee àndal ci suñu beneen plateau bi ñu tuddee yoonu màggal gi duñ def dara du bàyyi ko rek mu daal di nuyoog mbokku internet di koy seetaan sëñ nuyu jërëjëf soxna Maguette maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbooleem internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci 24 actu di ñaanal Cheikh Mountakha mu yàgg fi te ànd ak wér ba yéene ji am ci liggéey Sooyal Xadim mu def ci lu kawe njortam di sant bu baax te di rafet lu liggéey bi ni ngeen koy defee ci njëlbeenu euh, wàccaayu màggal gi ba tey jii di leen sant bu baax te di leen gërëm di ñaan sëriñ bi mu nangu lépp. Euh, papa ñu gis ne li nga xamante ni moo di safar ñu bëri dañ naan ak cant la sëriñ bi moo ko wootee pour ñu koy santale boromam papa ñu bëggoon tuuti nga ñëwaatal ñu ci naka la sëñ bi wootee cant gi ñu di ko defalee. jërëjëf euh, bis bi bisu sant la euh, sëriñ bu mag bi liggéey bi nga xam ne doon na ko liggéey ci diggam ak te doon ko liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa te liggéey boobu moo ko yóbbee woon. mu doon wax ci asiru ma al abraari naan xusuuri xalat wal ahlu anni tafarraqat li madaxi alladi anhu lmadihu xasiru samay kër gent nañ samay njaboot tasaaroo nañ taqale nañu ma ak sama ñoñ ngir tagg gi nga xam ne maa ngi koy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam liggéey boobu ba mu ci noppee nag ba suñu borom téyal ko ruux gi ba nattu yëpp mu dékk ko ba noppi suñu borom xamal ko ne ko nag 18 safara ci la nattu yi tàmbali woon nattu ya na mu doon toll pay gu ko raw lañ lay fay at mu jot saa bu 18 safar ñëwatee moo tax sëriñ bi jël bis bi di ci sant yàlla sant gi mu ciy sant yàlla mooy yàlla nattu yi nga xam ne teg nag ko waaye may ko ma xolub mën a muñ ak kàttanu mën a dékku mu dékk ko ba mucc ci ci jàmm ak salaam te deful mbaa mu wax mbaa mu mel melo wuñ koy xeebe moo tax keroog bi mu wàccee ndakaaru li mu njëkk a wax mooy maam Cheikh Anta Cheikh dem naa ba dellu si ba ñu ma ngeen toppaat samay tànk fépp fu ma jaaroon jaaraat leen fa du ngeen gis ma wax luy rusloo sama taalibe du ngeen gis ma def luy rusloo sama taalibe ci juróom-ñaari at yëpp kon kooku suñu borom dëbb na ko kàttanu muñ ba mu dékk nattu yi nga xam ne yëpp doon nañ ko ko teg mu noppi nag ne kon nattu yi nga xam ne maa ngi ko doon dékku suñu borom teg ma ko ma dékku ko mu noppi mu di ma ci fay danaa jël bis booba nga nattu yi tàmbali woon santaat ci sama borom mu wax ne nag képp koo xam ne sama mbég sa mbég la bu bis bi ñëwatee nag ma ci santale yàlla moo tax ba mu tegoon nattu yi ba noppi ba mu ñëwee la mu njëkk wax mooy rabixtu fi tijaarati fi xurbati wa ashkurul akrama inda turbati euh, ginnaaw bi nga xamee ne jaayante naa ak sama borom ngir liggéeyal ko jaayante ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ngir liggéeyal ko nattu yi metti lool ñu taxale ma ak sama njaboot génne ma samam réew génne ma sama dëkk tumurankeel léegi nag delsi naa li des mooy lan bisub sant bi fu fan laa koy defee ca sama réew ma plus particulièrement ca sama dëkk ba ca nga xam ne mooy Touba moo tax mu ne sukurul ilaahi xaana fii turaab yi banda jamili sabri fii tiraab yi léegi nag ginnaaw bi ma muñee natt yi muñ coono yi ba noppi nag il temps lenn rek moo des mooy lan mooy sant yàlla sukrul ilaahi xaana fii turaab bi la wax sant yàlla gi mooy li des ñu war koo def fii ci Touba moom la ñuy def nii sëriñ bi digle ko te ñu xam nag ni ni ko sëriñ bi diglee mooy cosaan li mooy togg ñam joxe màggal bernde sëriñ bu mag bi mu koy njëkk def la mu njëkk a def ca loxol boppam ci 18 safar te sëñ Mawlaay Bousso wax ñu ko sëñ Mawlaay Bousso di doomi sëñ Mbàkke Bousso sëriñ Touba yar ko mu nekkoon njaareem màggal gi sëñ Touba njëkk a def sëñ Mawlaay moo wax ci làmmiñu boppam nee na xar mañ ca njëkk a rendi moom la ko sëriñ bi defarloo sëñ laay nee na la sëriñ bi def mooy rey xar mi def ko ñetti saam joxe ko daan ne képp koo xam ne sama mbég sa mbég la bu bis bi ñëwatee nag ma ci sant la yàlla kon bernde la ci sëriñ Touba njëkk def moo tax màggal bernde bernde nag soxna si day day day alali sëñ Tuubaa dama koy faral di wax euh, sëriñ bi ci boppam moom moo bind wax ne saaxaliyal baax yi xiran bi lan siram kun fa yakunu li yu wajjihul maram gis nga boo gisee murid yi mën a bernde bu màggal jubsee dañuy bernde bu màggal agsee ñuy bernde bu màggal jàllee ñuy bernde li ko war a lenn rek la mooy bernde bi ko yàlla sàkkee moom mi nga xam ne moo sàkk lépp da koo jël may sëriñ Tuubaa bernde alali sëriñ Tuubaa la foo ko mën a dégg dafaa joox waaye dëkku fa bernde boo ñëwee Touba fekk ko fi fii la dëkk fii la juddoo alali Serigne Touba la Serigne bi moo ne ñu saqal yel baaxi xiran bi leen siraam yàlla mi ma sàkk sàkk bernde moom bernde moom moom moo jël bernde may ma muy sama alal moo tax mu digal ñu ko ci bis bi ñu di ko def ci lépp nag ñaari xeeti bernde nag moo am bernde goo xam ne bernde yaram la ak bernde goo xam ne bernde ruux la yéen lii ngeen di def mooy bernde ruux yi ñuy fàttaliku sëriñ bi ci 24 actu di fàttaliku li taxoon mu digal ñu bis bi fàttaliku li tax mu sant mu mu mu taxawal bis bi soññaat nit ñi ci seen pas-pas ci Serigne Touba loolu mooy berndey ruux yi berndew yaram yi it mooy li mu tàmbalee bis bi mooy togg ay ñam di joxe nit ñi di xewlu jël ay naan yu sedd di joxe nit ñi di xewlu loolu mooy berndey yaram yi kon ñaar yëpp la ñuy boole ci bis bi ndax ñaar yëpp la Serigne Touba digle hmm. leeral gi foofu tamit am na solo waaye papa tamit bu ñu gisee Touba bu njëkk ak léegi gis nañu ne léegi dëkk bi yokku na lool wàllum éducation tamit ñu ngi ci béy seen waar bu baax a baax papa boo doon def comparaison entre Touba bu njëkk bi ak léegi. Euh, Touba bu njëkk bi ak léegi comparaison bi euh, ñaari Touba la yu bokkul ci saayir Touba ju njëkk ja ab village la woon boo xam ni bu ndaw la woon neex a wàññi neex a xam tolluwaay bi. neex a xam ñaata nit a fi nekk sur le plan démographique sur le plan économique mu nekk lu neex a takk léegi nag dem na ba maintenant dafa nekk deuxième ville sur le plan économique ak démographique màggalu Touba gi ñu nekk di màggal gi nga xam ni mooy bis bi gën a rëy ci Sénégal économie Sénégal màggalu tubaa dina ci dugal deux cent quarante et quelques milliards deux cent quarante neuf milliards ci étude bi nga xam ne waa université bu Bambey ñoo ko def daaw jéeg exposé nañ ko fii ci ci ci ci résidence bi euh, mu nekk loo xam ne quarante et quelques milliards yi ci keesu nguur gi lay dem directement leneen li ci des mooy tasaaroo ci biir secteur secteur yeneen yi ci biir réew mi ci ci ci économie Sénégal kon loolu fi muy jógee ci benn dëkk la ci Sénégal muy dëkk bi nga xam ne bu njëkk Touba gu njëkk ga village bi moo nekk léegi ville grande ville boo xam ne mooy deuxième ville ci wàllu économie nekk itam deuxième ville ci wàllu démographique ndax xam nga ne lu ëpp ñetti millions yi doomu aadama ñi ngi yeewoo Touba boo ko booleeg juróomi millions yi nga xam ne dañuy màggal si te daaw bi ñu xoolee wàññi li fi jot a dugg ci tuubaa ci liñ mën a takk wax nañ ne juróomi million ñëw na loolu moo tax Serigne Mountakha digle ne buñ ñëw nañ ko indil juróomi million yi masque ngir nit ñi juróomi millions yi nga xam ne ñëwoon nañ daaw kon comparaison bi lu dara lu dul liggéeyub Serigne Touba bi nga xam ne liggéeyoon na ko suñ borom fayee ko Touba. Touba bokk ci fay gi nga xam ne suñu borom fayee na ko sëriñ bi jamono jii ñuy wax ak yow amul benn dëkk bu ko dab ci Sénégal te boo jëlee dakaar li tax muy nekk première ville économique ak démographique mooy région bu dakaar ngay jël dakaar région ak ses communes yi nga xam ne moo nekk ci biir yëpp mu doog a jiitu Touba. Touba di benn simple commune boo xam ni day jiitu région yi ci Sénégal yëpp beneen région boo jël ci économie ci démographique daanaka Touba daf koy jiitu. mennum région bu Dakar donc moo ci ëpp Touba te Touba ba tey simple commune la boo xam ne budget wu 4 milliards la am kon loolu lu mat a xel la kon dëkk nekk na dëkk bu mag nekk na ville bu mag boo xam ne ñaanu ko Serigne Touba nangu na ndax Serigne Touba moo waxoon ci ma mawaahibu naafi ne laakin unaadi kulla la ibaadi ilaa imaadi bila jalaa'i maa ngi woo mm, képp kuy être humain la wax maa ngi lay woo ci sama dëkk bi waaye boo ñëwee nag bilaa jëlaay moo tax ngir nga doo du mën naa ko sax wax la si ñëpp laa doxoon di nga gis ku ne jóge fu ne ñëw Touba waaye kenn du jóge Touba dem tuxu ji dem feneen bàyyi fi Touba lool nag ñaanuk Serigne Touba la mooy bilaa jalaay ji moo tax kon dëkk bu mag a mag la boo xam ni ci grande ville yi Touba yi mujj juddu ci Sénégal ba noppi jiitu ci ci la bokk ndax Touba ba fii may wax ak yow 132 ans rek la amagul 132 ans dong la amagul nekk deuxième ville sur le plan économique ak démographique kon nañ xool bu amee 150 ans ba xam fu muy toll leeral gi foofu am na solo mais papa fi ñuy jeexalee rek mooy période bi nga xam ci màggale nañ ko ren muy période hivernage lañ nekk nga gis ne dëkk yu bari quartier yu bëri ci Touba bokk euh, dafa dafa dafa daal di inondé mu jur benn euh, métti ci ki nga xamante ni ñooy ñëw di màggal si ndax tey gi bi duñ ko xam euh, dëkk boo xamante ni mel na ne Touba comme ni nga ko waxee sànq lan ngay lancé message bi nga xam ne yaa ngi koy lancé pour ñuy bàyyi xel période bu mel nii buñ koy màggal. message bi ñuy lancé mooy dafa am loo xam ne. ñi nga xam ne ñoo ko gën a mën am doole ji mooy état muy li ñuy wax assainissement wu dëkk bi gis nañ liggéey bu extraordinaire bi ci Touba kanam di def fan yi waaye Touba ca kanam mënul lépp donte ne nag bu ko murit yi jàppalee murit yëpp respecté weer ñaar téeméer yi Touba ca kanam day man lépp liñ bëgg ci Touba waaye nag ci kaw murit yi takku kenn ku nekk weer wu dee nga am nga ñàkk mu néew mu bari nga jël ñaar téeméer dugal ko ci Touba ca kanam loolu liggéey bu am solo la waaye assainissement wu dëkk bi moom faaw ñu taxawaat ci bàyyiwaat ko xel ndax màggal gi day gën a dugg ci nawet fi mu ne déwén ak déwén jéeg màggal gi day nekk ci biir wax set te su boobaa day gën a compliqué day gëna a métti léegi nag lañ ko war a commencé waajal jëm déwén incha allah màggalu 2021 ba nga xam ne nit ñi danañ màggal ci jàmm te kenn du am jafe-jafe kenn du màggal ci biirum ndox donte ne Touba moom inondation yi métti fi lool ndax mbedd yi dafa yaatu niñ ko nattee suñ Cheikh Gaynde Fatma ma di di di un homme multidimensionnel nga xam ne ni mu nattee dëkk bi boo ko xoolee da ngay xam ne daanaka lu baree bëri lu tax inondation du am Touba loolu ci nattin wi ak tëru tëru dëkkiin wi ci la bokk. loolu moo indi woon it Touba nekk ville modèle jamono yi nga xam ne ONU jël nañ ko def ko ville modèle te ñu yabaloon fa délégation suñ suñ Moustapha Saliou suñ Mamounum suñ Fallou ak ñu euh, ak ñooñu ñu demoon fa euh, ca ONU teewal fa Touba. loolu ville modèle boobu ba tey tey la ko gën a doon waaye nag ñun ñëpp ci kaw ñu takkatu bañ a xaar état ci dara ndax état moom mënut lépp waaye nag rawatina bu la yàlla nattoo ak état boo xam ne seenu leadership dafa manqué daanaka ñu tële ba noppi liñ lay wax ak la ñuy def daanaka day soree doo ko mën a xàmmee loolu gis nga li ci xew ci ndoxum Touba bi ñun ñëpp gis nañ ko dëkk bépp kenn mënut am ndox maa ngi ciy dégg ay rumeur yu bari ay nit ñoo xam ne wàcc nañ ci terrain bi tey jii ci turu xoddaamul xadim euh, muy ñoom mut job jawbeeg ñooñu gis nañ yu baree bari yoo xam ne xeetu sabotage la bu ñu def ci forage yi yi loolu moo indi ndox mu baree bari ñàkk mu ngoog loolu nag yu mat bàyyi xel la ñu ngi leen di ñaan daal ñi nga xam ne ñoo yor ndox mi ak yi mel ñu di ci góor góorgóorlu ba bu bis bi ñëwatee ginnaaw réew mépp dañuy àndandoo ñëw Touba ñu góorgóorlu ba Touba ñaar fukki forage yi fi nekk ak nangam yëpp di dox bu yëpp di doxandoo moom duñ am problème ndox mbaa buñ koy amit du métti waaye ni mu mel nii moom du lu war a am Touba wax dëgg yàlla te dëppoowut ak bëgguk sëriñ bi ndax sëñ Tuubaa dafa ñaanoon wa maskani sallim minal fujjaari wam noonu alal ahli bi maa in jaare ndox moo xam ne dafay sax dàkk kon nañu wattandiku yooyu te di góorlu di jàppale askan wi di jàppale waa Touba tey xam ne ay njabootuk sëriñ Touba lañ dañoo bàyyi seen genti maam bàyyi seen dëkki maam ya bàyyi seen tooli maam daw ñëw Touba ngir xéewal yi ñu fi dégg buñ ñëwee nag xéewal yooyu dañoo war a bokk ñun ñi leen koy jëmmalal ci seen kanam sagal ci sëriñ Touba ba ñoom kenn du ci gis lu la naqari doo fi dund mukk lu lay fàtte lu ko sa gentu maam ba ba ngay jàpp ne sax sa gentum maam ba moo dàq Touba loolu nag ñun ñoo ci war a jóg ñi nga xam ne ñooy autorité religieuse yi ak autorité politique yi kenn ku ci nekk li la war di sa devoir ci taxawu waa Touba ci dëkku euh, ci ci ci ñi dëkk Touba ak njaboot gi ñii ñëw Touba ñu taxawu leen euh, jàppale leen ci li nga xam ne moo war ba jafe-jafe yu mel ni dootul amati. jërëjëf sëñ Abdou Lahat euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax kontaan bu baax baax ci disponibilité bi duñ def leen lu rek bàyyi la nga daal di tàggoog mbokk internet yi lay sitaan jërëjëf soxna Ndeye Maguette sama doom maa ngi lay sant di la gërëm te am mbégte bu baax a baax ci bokk ak yow jotaay bi dag ma jaay doole nag ak euh, ak euh, fexe ba forcé ma rek ndax doom gi nga xam nga ne sama doomi xol nga sama doomi deret nga waaye bëgg nañ lool ci bokk ak yow jotaay bi di sant ñëpp di gërëm luñ fi waxee te muy lu dëng mbaa lu waxul ñu ngi koy tuubal ñëpp lu yëwén ak lu baax rek lañ ci jublu wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf mbokku internetu 24 actu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci safoo bi ak wóolu bi ngeen ñuy wóolu ak topp bi nga xamante ni nañ koy topp seen site bi ñu ngi leen di jox dig daje nag ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf salaatu lazi fi kulli sayrin هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر سلام